waaw ndeysaan ñu jayi jayi xale xale fañax fañaxi final ba nga noon ndeysaan kooke ak ki nga xam ne ndeysaan moo di waaw waaw jël ko rof na ko jaxabal songole la ilaha illallah door fayu door fayu Assane yàqul yàqul fayu hee Assane daan na kooke bu sàmm